cant ak ngërëm ñeel na leen yi ñi safoo internet bii di net bi tv li gën a fës ci bopp dañ koy do rekkat yu nga xamante ne kii di maître Ngagne Demba Touré daal dina koy fësal nag la mu daal di xam ne rek ne na nag ki nga xamante ne moom mooy militant cadre ex pastef bii di woo ci turu Cheikh Thioro Mbacké nekk député coordinateur bu pastef Touba daa daal di tuddee rek kii di Ousmane Sonko ab tout tànk mu nekk nag première doom bi nga xamante ne rek daal dina koy am ba tey rek bu ñu ci kat yi nga xamante ne kii di maître Ngagne Demba Touré daal dina koy yëkkati nag nee na ci ab communiqué daal lañ ko daal di fësal jamono ji nag ma ñaanal bu baax ki nga xamante ne rek moom mooy trondooru Ousmane Sonko bi ñu dippee Ousmane Sonko Mbacké gudd fan wér ak wérle di ko ñaanal tamit ay waajuram équipe bu net bi TV yëpp ngi koy ñaanal yàlla dundal ko ba noppi rek may ko xel ak moom mi nga xamante ne rek moom mooy petit Serigne Ousmane Mbacké ba bu ñu jógee ko nag dañuy àddu rek wutali ci kàddu yi nga xamante ne kii di Ousseynou Ly daal dina koy yëkkati moom mi bokkoon ci ex parti bi ñu dippee Pastef ne na nag ma ngay bu baax di président Macky Sall tey nag ma ngay sàkku ci nu mu gën a gaawee rek candidat Bassirou Diomaye Faye nag ñu daal di koy bàyyi mu ñibbee fi nga xamante ne rek moom mooy ca këram ba tey rek la mu daal di xam ne moom Ousseynou Ly moo di ne nag bu fekkee ne rek bàyyi nañ ko foofu lépp lu ko fa dal rek Macky Sall ak gouvernement am nag moom mooy njàkk te yàlla bu ñu yegg foofu moom la mu daal di xam ne ne nag mënoo dem campagne waaye nag li tax rek Macky Sall ci boppam ak nguuram rek ba nëgëne libéré gul kii di Bassirou Diomaye Faye ngir mu mën a amal campagne bu mucc ayib ca émission RFM matin ni ki tey jii moo ko ñaar fan ak ñaar ci weeru janvier bi nag la ko daal di xamle mu daal di ci yokk ne nag am na ñaari gàcce yoo xamante ne rek moom moo am ci réew bu fekkee nag day ñëw na gaaw a ñëw bu fekkee nag day yéex dina gaaw a ñëw ndax nag jamono ji lenn daal moo mun a am nañu bàyyi ki nga xamante ne rek moom mooy Bassirou Diomaye Faye mu daal di doxal ndax biddiwam daal di nay tàkk mu di ci yokk nag jamono ji Macky Sall ak nguuram daal def nañ bu nekk waaye nag jot na rek ñu daal di bàyyi kii di Bassirou Diomaye Faye mu libre ba noppi rek amal campagne boo xamante rek campagne bu am solo lay doon bu boobaa nag dina ko mën a may mu gagné élection présidentielle ñu dët ma ci atum 2024 bi mu nekk choix boo xamante ne rek daal kat bi nga xamante ne rek kii di Ousseynou Ly nekkoon ci parti bi di Pastef moom moo ko daal di xamle jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de